Sall lañ may wax ma tudd Ami Fall nekk li nga xam ne maay présidente association des parents d'élèves bu groupe Yaawu Salim Thiès. waaw moo waral ndaje tey bi. tey bi dañ ko organiser parce que dañ war a wax ak ñi nga xamante ne ñooy parents d'élèves yi fi indi seeni doom wax ñi nga wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fiy liggéey maanaam le personnel enseignant wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñëpp am nañ xel mbala sopp nañ li nga xam ne mooy groupe Yaawu Salim. ci li nga xamante ne nii moom la état du Sénégal bëgg a def mooy jëlee fi ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo doon euh, yore école bi gestion école bi ñoom ñoo ko mos a yor depuis vingt ans ils son la ñu jël ko jox ko ñeneen loolu boo gisee parents d'élèves yi sonn ci di ci xeex mooy dañoo toog ba fi nga xamante ne nii mooy mois de décembre jëm janvier ñu ne ñu ñi fi nekkoon dañu leen fiy génne yëpp indi fi ñeneen boobaa kuy parent di nga jaaxle euh, sa fit du dal. parce que ñooñu xamuñu leen ñi ñu xam jox nañ confiance ñu ngi fekk suñuy doom te résultat rek lañ fi doon def macha allah léegi bu fekkee ne ñooñu jëli nañ leen fi indi fi ñeneen li wóor ba wóor mooy dañuy tàmbaliwaat à zéro dañuy tàmbaliwaat ndax ñu dul fekkante bu fekkee ne am na ñu dul fekkante duñ mën a liggéeyandoor su ko defee suñu doom yi nga xamante ne nii jàmm lañ xamoon jàng lañ xam ak dans un très bon cadre. ñooñu seen xel dina dem seen fit dina dem ñu xam fu ñu jëm loolu mooy suñu li nga xamante ne nii moom la ñuy yuuxu en tant que parent moom la ñuy jooy en tant que parent moo waral nag ñu def tey réunion bii ba ñëpp fekkee ko. laata loolu am na démarche yu ngeen tàmbali yan la. waaw am na ay démarche parce que dañu am li nga xamante ne mooy comité restreint boo xamante ne dafa réunion réunion waat bi mu réunion yi nag am na lu mu nar li mu nar mooy bëgg na marche maanaam dox ñaxtu. comme ni ko bépp sénégalais amee droit di ko def bépp association am na droit def ko doxu ñaxtu boobu nag ñi ngi ko jàpp fan yi di ñëw li ñu war nag def nañ ko mooy li nga xamante ne dañuy déposer li nga xam ne mooy autorisation bés buñ ko autorisé dinañ dox ci digg mbedd Thiès yi wane ne lii état du Sénégal bëgg a def ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg bu ko defee neexuñu tey neexuñu ëllëg. mais tàmbali ngeen seet euh, kilifa diine yi aussi. kilifa diine yi wër nañ leen ci semaine bii seet nañ leen. képp kuy kilifa diine buñ fa demee waxtañ naan waxtaan nañ ak yow buñ la fekkee nga fatu nga xaw a jàpp teg nañ fa li nga xam ne mooy lettre bi leeralal la li parents d'élèves ya yaabu salimi nam mu def leeralal la li nga xamante ne nii mooy problème bi nga bi waral parents d'élèves yaabu salimi di jooy loolu daal def nañ ko ci dëkk bi yëpp ndax yéen a ngi xalaat euh, lii aussi euh, xam ne seen àq seen ay àq doom la aussi réew yoon la ñu ne yéen a ngi xalaat aussi saisir yoon. waaw yoon moom xam nga lu ci ne rek mënul ñàkk bi loolu amee au niveau national euh, jël nañ ki nga xamante ne ni mooy assan jomb Ndiaye Ndiaye maître Assane Diomba Ndiaye. lépp loo xamante ne nii ci jëm ci yoon moom dañu leen koy wàccee ñoom dinañ ko dox. waaye ñun parents li ñu mën fi mu nekk nii mooy yuuxu woote ñaan ñaanlu ndax lii ñu lii ñu ñu nar a defloo ñu teg ko ci suuf. Je suis Madame salle la présidente de l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Printemps de Thiès. Voilà, qu'est-ce qui explique cette AG? Cette assemblée générale euh, a pour but de d'informer les parents de recueillir aussi leurs avis par rapport au problèmes que rencontre le groupe Yavuz Salim, à savoir la confiscation de cet établissement au, au profit d'une fondation appelée Marif. Et voilà, euh, les enfants sont perturbés, déstabilisés. En ce moment de l'année, nous ne savons même pas quoi faire. C'est pourquoi l'association des parents est en train de mener des activités. Ces activités tournent autour d'un plan d'action. D'abord, euh, il y avait la visite euh, au chef religieux euh, du, de la commune de Thiès. Nous avons rencontré pas mal de chefs religieux que nous saluons au passage. Nous avons aussi l'intention de faire une marche la semaine prochaine. Si l'autorisation, nous l'avons à temps, euh, Inch'Allah, la semaine prochaine, l'association des parents d'élèves, le personnel enseignant et tous les sympathisants du groupe Yavuz Selim sera avec nous et nous allons mener une marche dans la ville de Thiès, une marche pacifique et sans problème. Justement, les craintes pratiquement sont connues de tous les Sénégalais, mais vous pensez que le combat, c'est vous-même, parents, qui devez le mener Bien sûr, parce que c'est les parents qui devront réagir, parce que nous avons nos enfants ici. Nos enfants sont là et pas de problème. Ils ont un très bon niveau. Depuis lors, ils ont un très bon encadrement. Et imaginez maintenant, au vif, on nous prend cette, ce, la gestion de cet établissement qu'on va confier à quelqu'un d'autre. Et voilà, les enfants seront quoi Feront quoi exactement On va recommencer à zéro. Et qui est cette association Faites des investigations et vous verrez. On n'a que du négatif sur cette association. on n'a que du négatif. Vraiment, ce que nous voulons, nous décrions, laisser cette, ce, association, ce mouvement Yavou Selim, continuer vraiment pour le bon fonctionnement de cet établissement. Pour la réussite de nos enfants, nous crions et nous reprenons ce, slogan. Ne touchez pas à Yavou Selim. Laissez nos enfants continuer. Vraiment, c'est notre, notre, notre souhait. Nous appelons toutes les bonnes personnes, toutes les personnes de volonté, de bonne volonté. Nous appelons le gouvernement sénégalais à laisser cette, ce, ce, ce, mouvement qu'on appelle Yavou à continuer vraiment pour la réussite de nos enfants. Sur le plan diplomatique, vous pensez que euh, euh, Vraiment, sur ce plan, sincèrement, je ne maîtrise pas la situation. Et d'habitude, une chose que je ne connais pas trop, je ne veux pas m'avancer.